You. toujours dans votre acte du jour de ce 17 octobre 2024 suñu jógee ci Amadou Ba dañuy dem ci li nga nouveau plan référentiel Sénégal horizon 2050 bi nga remplacé lii di livre solution remplacé seen projet ginnaaw diggé bi nga xamante ni nañ ko Sénégal ci fukki at muy livre yoo xamante présenté nañ heureusement le 14 octobre la ñu présenté ligne lii nga xamante ni référentiel Sénégal horizon 2050 lu bokkul ak solution lu bokkul ak projet boobu defoon nañ ci Natalou Diomaye ak ki di premier ministre ba tey jii gisuñu lolu mom ci boppam bi nga xamanteni tay mom mo présenter présenté référentiel bi utiliser cabinet bi nga xamanteni mom lañ tuddé performance groupe qui di Victor Ndiaye dal di koy bind lan moo démb ci lii nga xamanteni moy plan Sénégal émergent bi nga xamanteni Amadou Ba moko initier initié dénkoon ko Victor Ndiaye sioné aduna wërngal keub ba mu am ci ay réalisation am ci ay financement ñi defar Sénégal mom leaderu Pastef di l'acteur premier ministre bi nga xamanteni tay mo nek ci bop Sénégal bi mu ñëwé lu ñu présenter muy référentiel lui kan mo bind référentiel bi ak lan mo ci doon xalaatam dembu parce que nenañu gouverner c'est prévenir état continuité la so ñëwé da ngay fekk li fi nek nga xol naka nga koy continuer nga xol li nga fi fekkoon nga continuer ko jël yow xam-xam bi nga indaale nga dal di koy améliorer nañuy déglu ji leaderu parti Pastef yan cadre la yëkëti won jëmele ko ci li nga xamanteni moy PSE bi donté né Amadou Ba nee na kenn du ko vaar ñu xol mom ndax dañ ko vaar ñu déglu ji Bougane Gueye Dany lan mo doon xalaatam ci li nga xamanteni moy PSE Ousmane Sonko en tant que opposant lan mooy sa xalaat ci PSE. nga le PSE man fi ma fi ma jaaxalee mooy dañoo bëgg gëm lo Sénégalais ni nous serons émergents suñu réaliser le PSE. Il faut que les quelques mesures du PSE là moo niveau yóbbu niveau Et par mesure de prudence motax ta baña mënul ñu encore que ren on est à 4,6 xawma de projection qu'on n'atteindra même pas est-ce que LFR bi ko à 3,6 xawma. mais bref. Euh, suñu buggee gëm la moo def plan Sénégal ngeen out mais émergent bi mom defena nous mënuñu fexé ba avec ce plan là Sénégal n'est ci émergence. ok bu ma la déggee daal lu baaxul la PSE plan Sénégal émergent bu mu jëm jëmale Sénégal fenn la quoi ok Bougane Gueye Dany en tant que opposant lan mooy sa xalaat ci PSE. lu PSE du ma ko sànni. ok PSE da nga koy améliorer continuer ko c'est-à-dire mënuñu kenn ku nekk bu ñëwee indi plan wu boppam parce que nag nguur kenn état kenn du ko doxalee noonu. te mhm. di encore une fois man bokk ma ci ñuy wax ne lépp dañ ko il dindi non on est une grande nation voilà faw ñu continuer ko mhm. bolé ko ak ñun yéene ak doxalin ak xalaat bi ñu am ngir luy défar Sénégal euh, le PSE c'est un plan bo xamné dañ ci duggal xaalisu Sénégal boo ko sanni ko ci mbalit mi suñu alal la man meluma comme ñi nga xamné ay politiciens lañu bokkuma ci ñi nga xamné dañuy ñëw di def politique politicienne di wax di sanni do ñëw né PSE baxul dama koy taxañ dama koy dugal ci poubelle bi gëwuma loolu. pourtant Bougane am na ñuy wax naan PSE ak plan Sénégal émergent baaxul de. ñiy wax loolu populisme la waxuma gëwuma loolu. dama ne dangay xool li ci baax nga continuer ko xool yow li nga indi dolli ko ca ngir mën a defar Sénégal Sénégal du benn nit moo koy defar. Notre moo ñu doon wax PSE bu Macky Sall. ok waa ji wax nii. Moi, qui nous présente le projet Sonko 2050 war leen La proposition du président de la République au Sénégalais, c'est d'abord une transformation systémique, plus de souveraineté, des filières compétitives et des pôles économiques dynamiques sur l'ensemble du territoire. Comme projet amul tu as beau ñu ngi dig projet waaye un ko amul li bëgg a buggaan wax 2018 la woon moment bi bam koy xam lu ñu wax buggaan Macky Sall lay liggéeyal moo tax muy wax li muy wax yaal def ñom ñu falu 2024 teguñ dara dem jëli fa doon liggéeyal Macky Sall ci projet am mu ligéat même projet ñu motax tax buggaan bu dawal yagg rek nga war a feeñ rek mooy mujj buggaan am na ci en récemment encore une fois kon ñoo ko déggandoo moom leaderu parti Pastef du temps de l'opposition l'actuel premier ministre le doon xalaatam ci PSE bi dañu bëgg a gëmloo ni que que PSE bi di plan Sénégal émergent mën na doon plan Sénégal mais émergent kenn du ko mës a gis ci Sénégal loolu la moo doon xalaatam ci PSE bi waaye tey gëm naa ni que lépp loo xamante ni PSE bi teg na ko ci émergence la bokk ndaxte BRT bi ci émergence la bokk bus rapide transit ci émergence la bok li nga xamanteni moy terre bi ci émergence la bok li nga xamanteni moy mooy stade Me Abdoulaye ci émergence la bok université yi nga xamanteni def nañ ko ci réew mi ci émergence la bok pont yi nga xamanteni da fay rattaxal dem beeg dik bi ci émergence la bok kon yaakaar su émergence gis nañ ko mais ndagam yow gisoo woon émergence nga xamanteni ne e bi mom la def te kiko créé di Victor Ndiaye lutax tax nga dem jëli ji Victor pour mu defal la un référentiel Sénégal pour le développement kon nañu jàpp ni aussi sa référentiel 2050 ken mënu ci gis développement ndaxte tay ji huit mille milliards nga soxla alors que yow tay ce signaux yeb dafa nek en vert si ñetti weer yobbu nga Sénégal si dégradation ci notu li nga xamante ni mooy bi jëlee ko ci BA3 yobbu ko ci B1 ba nga xamante ni tu sous surveillance. alors que PSE bi mi ngi fekkon Sénégal tay fi ngeen yobbu Sénégal ci juroom benn weer 2014 la Amadou Ba fekk Sénégal ci 6.5 muy B1 bi ñu nekk ko ci BA3 ñu jox leen ko ci benn ngeen ko ci BA3 ko ci B1 plan Sénégal émergent moo baax wala tey seen référentiel 2050 n'a cinquante naxe mbay baaxul Bougane dégg ngeen ko je crois que cadre du mu je crois que moi cadre kilifa mooy moi ko aspiré ndaxte Bougane xamoon na état nee na suñu ñëwee du ñu dindi PSE du ñu ne dara baaxu ci dañ ko fait bàyyi fekk ko fi mais l'un des ñuy def améliorer ko et je crois que loolu aussi c'est raisonnable parce que fait que plan bi nga xamante ne mi ngi développé réew nee nañu état continuité la ndaxte leen bi ngeen ñëwee ministères yi a ko jël direction yi yéen a ko jël lépp lu ngeen fa defoon passation de service da ngeen continuer ci loolu donc loolu mooy état état yow da ngay xol xam-xam bi nga amone indi ko nga yokk ko ci PSE mais tey sonal nit ñi sonal sénégalais ci référentiel je crois que mënoon ñi ngeen ñëw rek ne ñun dañuy continuer ak PSE bi ndaxte moom moo baax te mom lañ jël ba horizon 2035 fofu xeyna li nga xamante moy Victor Ndiaye wax na ko ngi ci mi carte parcours 2035 mo trente gaaw que 2050 ndax cinquante ndaxte ki am 25 ans ba am 50 ans 2050 amul ko benn njëriñ ci li nga xamante manam mo ngeen tek ndax day fekk retraité na màgget na xeyna peut-être xalé yu juddogul wala suñu sët ñooñu ngeen di liggéeyal mais pas pour les sénégalais yéen ci seen bopp sax dina fekk maanaam xëy na yéen ngi doxee bant wala bijaaw ngeen moo tax ma ne naxe mbaay baaxul na sénégalais yeewu xam ne li ñu leen tegal amul dara loo xamante ni mën na prospérer Sénégal ginnaaw bi nga xam ne Sénégal dafa delluwaat ginnaaw fa mu nekkoon ci 2014 muy 6 point 5 te ñoom ñoo ko fa yóbbu ci juróom-benn weer.